maintenant de se rassembler, de faire face à Macky Sall, d'organiser les résistances pour lui dire son mandat est terminé. Il n'a aucune possibilité d'aller au-delà du 2 avril. Le 2 avril, Macky Sall va rendre le pouvoir et il faut qu'on se donne le temps d'organiser une élection avant le 2 avril Inch'Allah pour élire le prochain président du Sénégal. il y a plus de 1000 détenus politiques dans les prisons du Dakar région yi am détenus politiques Mon président Macky Sall bu libéré 100 wala lu top topp dañu ko naan alhamdulilah lu baax la waaye na parce que prisonniers politiques yi ña ca 90 pour cent yi mbaa lu ko ont defuñu dara en tax ñu jàpp leen ci kaso yi dañu leen a tooñ fekk leen seen kër jàpp leen tuumaal terroristes lañu forces obscures ay rebelles lañu ont été benn bis prison yi comme si de rien n'était alors que téye leen fa ay weer yàq seen liggéey yàq seen donc lolo kenn du ko ci wax jaajëf dafa réparer injustice Nako ko yokk nag na bàyyi ñëpp ak fan na bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi parce que moi jaadu téyewu ko Papa dara fii ak fan na bàyyi Diomaye Diomaye waroon na nekk fii tey candidat la à l'élection présidentielle parce que Diomaye bu wootee concertation lenn rek la ñuy concerté mooy mu nangu ni le 2 avril jeexal na mu woo ñu ni nañu waxtaane fii le 2 avril quand la ñuy organiser premier tour ak bu dee amee deuxième tour quand lañ koy organiser ndax ñëpp nangu nañu euh, campagne électorale bi ñu tënk ko ci ñaata fan. loolu mën nañ koo waxtaanee mooy naka la ñuy ci élection pour am le président de la république avant le 2 avril leneen lu mu bëgg a def lu le 2 avril une compromission la du ñu ko nangu man du ma ci dem du ci wax parce que mënuñu ko may une minute après le 2 avril. loolu la wax. dama

waaw l'union animée, moi l'union animée depuis le début rek depuis depuis depuis le début moi, mobilisé où? ba nga xam ni euh, waaw li ñu mobiliser rek mooy ñëw continuer le combat continuer la lutte ba li nga xam le la sénégalais yi bëgg ñu organiser cette élection instant bi ñu ko waree organiser daanaka le 25 bi raw nañu mais il y a possibilité de se rattraper dañu bëgg rattraper wu effectivement euh, li fi nekk ci mois de mars bi président organiser l'élection avant le 2 avril comme nous ko conseil constitutionnel donc nous continuons la mobilisation bi du baillons bàyyi du ñu bàyyi du tant que li nga xam ne loolu la yoon avant conseil constitutionnel nous avons sax di dàqal li nga décret présidentiel bi gis nañu ni nous avons ñu ngi continuer def